seen mbokkum taalibe moo leen di kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di sant suñu yaakaar tey ak ëllëg Seexuna Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul waaye it di leen sant yenn waa daayira Saadatu Laab ci njiital sëriñ Mamour seen ak ñu topp ci sa ginnaaw yépp ak sëriñ Modou Ndiaye bi ak ñi ngeen àndal ñëpp ci taxawaay bu rafet bii ngeen def tey ak jëf ju réy jii ngeen def tey euh, démb xawma barki démb bi may woo fekkoon na booba tey jii ci alxames ji dama cee jàpp wala génn waaye bi nga nee ma dañ laa bëgg a may si ngont moo tax nunguma leen woon wax ni damay génn ndax lii jaral na ma ko ndax yàgg na maa bëgg ah bis bu mel ni ci yeen ndax ñun señ bi lañ gëm mom lañ yaakar ah ci ñi nga xamni ñi ngi ci xasida yi ah diko def ci ni ngeen koy defé ni man day kuma ci xama kuma ci xamul yépp dama leen def comme sama bopp li nak li nga wax seytaane dana jog waaye ñu ngi leen ñaanal yeen yalla bu seytaane man ci yeen dara na ko jàpp téye ko am ci fulla am ci fayda xam ne sëñ bi kët lii rekk la bëgg ci dëkk bi kon nag bu leen yàlla baaxee dimbali leen ak ah, ngeen mën a takkoo nii jàng njàng mu leere nii neexe nii loolu taw feex la joo xam ni Sëñ Tuubaa taw feexe leneen kon na ngeen def nii benn bolok bañ xajal benn seytaane seen diggante bu kenn ni leen daayira bi nangam xaj na nit ki lu ko naqari wala discuter mën a ñàkk waaye lu mu ci man di doon na doon seen biir bu leen ci boole ku ci bokkut bu ñaar beru di wax lu mu doon lijjanti leen ko ci biir daayira bi ndax lii kat lu am am amam solo la te day man jàpp naa ni seen liggéey bii sëñ Touba nangu na ko barki sëñ tubaa moo tax ma ni Omar damay dem ànd ko ak ñoom ba mu jeex tàkk ndax kat olof Njaay dañu bëgg yëg a koy fay te lii ngeen def bëgg la kon tey man su ma amoon àddina ak li ci biram lépp dama leen koy defal waaye nag umu lu ma gënal sama jëmm ji moo tax ma jël jëmm ji jox leen ko ñëw toog ànd ko ak yéen bu jeex takk ah maa ngi leen di sant nag di leen gërëm ci képp koo xam ne yaa ngi bokk ci daayira bi muy ku ma ci xamanteel ak ku ma ci xamanteelut yéen ñëpp tàllal naa leen loxo ngir yàlla ak yonent bi ak jëmmi sëñ Touba ci lépp loo xam te ni nekk ngeen ci suba ba ngoon su ma ko yëgee danaa ci nekk ak yéen lépp loo xam ne tamit jàpp ngeen ko suba ba ngoon su ma ko yëgee dinaa ko jàpp ak yéen seen bis boobu it maa ngi leen ciy ñaanal yàlla ngeen ci te yàlla ngeen ko tàmbali ak bisimilahi rahmaani rahim mu yegg ak alhamdulilahi rabil alamina di ngeen ci ñaanal it yàlla na li ngeen ciy séentu muy ngërëmul sëñ Touba ngeen ko ci am te ñu ñaan ci yàlla mu ñu fekkee ko ca Talko jàmm te suñ ko fekkee ca Talko buñ ko fekkee ca Talko incha allahu rabbi mu fekk ñu fii ci dëkk bi ah danaa ñëw teew si ca incha allah ànd ko ak yéen asal bu saarade bil hayaati wa suwaari lisaan bi kawniya dal moosini

عن القريب البعيد Abdullah